bibliothèque këru xaside yi moo nar a nag musée bi nga xam ne moom la ñu jagleel nataal yi nga xam ne nataaloon nañu ko Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul muy nag ndigal lu bàyyeekoo ci xalif général kullu murid Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké nga xam ne nag Hizbut Tarqiyyah moo war a jëfee ndigal li nu mel kuréel gi nu mel nag tàmbali ci xaytu jëmale ko ci nees mën a def ba jëmmal ko ci njiitu kër Serigne Youssou Diop. ni ko waxee dafa naa ndigal moom. taalibe bu ne dafa am lu dox sa diggante ak Serigne Touba mooy da nga koo jébbal sa bopp àdduna ak alaxira ma diggal ma def loo ma tere ma bàyyi ñun amuñu bëgg amuñu bañ sëñ bi bëggam mooy sunu bëgg comme ginnaaw dafa bëgg ñu créer ko musée aménagé ko ko waajal ko ci biir këru xaside yi te yàlla dogal na këru xaside yi yaatu na ndax 2000 mètres carrés ba pare am ñeenti niveau su sol rez rez-de-chaussée premier étage deuxième étage incha allah dinañ ko ci def. plan architectural bu mucc ayib bu méngoo it ak anam yi nga xam ne noonu la tabax war a mel këru xaside yi doon bërëb bu mën a daloo musée bi nga xam ne bëgg nañu ko fa amal. bi ñu ñëwee ci ci liggéey man liggéey bi sax du gan ci man ndax yàgg naa fee ñëw fekk nañ fi liggéey boo xam ni am na fu mu toll naa ñu ngi toll ci wàll taaral waane donte mi ngi toll ci wàllu taaral. pour wax leen di rek liggéey bi xam-xam moo ko lal ca njëlbeen ko ba léegi bi lu bees lii ñëwee bin àndeek borom xam-xam yëpp bin defee wër xool seet ko seetluwaat ñu daal di weccoo xalaat ne mbir mi naka lañ ko ci mën a sofe ba nga xam ne du gàllankoor lenn ci ci taxoon a jóg këru xaxaside yi dañoo méngoo ci anam boo xam ne ah lii kat mën naa nekk ndax kii bi euh, nooy na nooy goo xam ni nu la neex mën nga ko ko wëlbatee. projet bu toll ni nu mel nag. dina laaj bu baax a baax dugal yoxo gu yàttu ci membre isbu tarxiya yi loolee di soloog woote bi nga xam ne jëruñu daara isbu xee mu ngi koy amal. kon man ñi may waxal mooy waa isbu tarxiya nañu xam ne sëriñ bi dolli nañu euh, taw feex ndax ndigal moom bu ñu la nee mi ngi nii rek xamal ne am nga taw feex ndax sëñ Tuubaa lépp loo koy defal jàppal jàppee nii neel ba mu ñuy sant jumaa ji day woon na am na jinne yu ko xos ñaan mu defal ngir defal ko ko.